alors Youssou lan nga xalaat ci DSB Immo. ah lan DSB Immo. Dieynaba Seydou Ba immobilier yaa yaa ma yaa ma jox ndëgër laay de. c'est-à-dire euh, Dieynaba. xamuloo sax li nga def. gis nga loolu dafa am importance. te dafa yaatu. Dieynaba boo xoolee Dakar tey jii boo xoolee Dakar tey fees fépp fees na Dieynaba commencé tamit di yëkkati. immeuble yi muy jóg am na ay projet yoo xam ne da ngay yëkkati immeuble mu jóg donc xam nga ne bii maay parrain bi dama si kontaan ndax góor baax na jigéen baax